ñooñu mhm. duñ sama xel dem na ci Mor fële ca prison bu Thiès moom def na ñeenti at ci kaso bi te attewaatuñ ko foofee ci prison bu Thiès sax am na beneen dossier bu ñu ma fay signalé koo xamante également mi ngi fay bëgg a yàgg te atteeguñu ko donc ci jotaay bii di ñëw dinañu gën ñëw ci ay mbiram fekk ñu xóotal ko baax a baax am ci ay xibaar yu gën wóor Fatima mi ngi noonu lu ca leer rek wala sax yeneen information yu ñu ci am rek dañuñ ko andiwaat yaatal ko problème boo xam ne nag war nañ ko mën a présenter fii ci réew mi euh, bilan enquête bi ca la ñuy dikk ndax Pape ba tey ci boobu leen mbir euh, euh, déglu nañ ci ay nit maanaam lu tolloog juróom-ñaari nit déglu nañ leen ci euh, doyen des juges moo def lu nu mel ku ci mel ni aji saar moom ndayu mbili gi déglu nañ ko ci Ndeye Khady Ndiaye Babacar Coulibaly Aïssata Ba docteur Alfousseyni Gaye ak deuxième docteur bi ñuy wax ni moom it déglu nañ ko mm-hmm. xanaa ci kanam tuuti rek grand bab si dina ci andi ay leeral mm-hmm. Sidi Ahmed mbay tamit déglu nañ ko ci waaye moom it ca ñañu déglu yëpp mën nañu ne dañoo ragg deru kii di Ousmane Sonko sauf Ahmed Sidi Ahmed Mbaye Mbaye moomule moo wax euh, lu moo wax lu méngoog li Adji Sarr wax mi ngi noonu te témoin yooyu la sax déglu nañ leen ci boobule mbir mbir maa ngay wëy nag ku nekk a ngi toog euh, xippi say bët di xool ñoom ñoo ñu le sax ay avocat yooyu nga xam ne ñooy layal Ousmane ko di sàkku ci autorités yi maanaam ñu auditionné kii nga xam ne mooy euh, capitaine Touré Pape. capitaine Touré voilà Babs. donc mu ngoog bi mi ngi wëree ndil ba léegi nii. Mhm. des observations par rapport Sweet Beauté Pape ñëpp xam nañ ne grand bab si def na si liggéey bu am solo euh, fan yi euh, ñu ngi wax loo xamante ne euh, amutoon si dossier bi ñu ngi koy dog di dégg moom mooy ñaareelu médecin bi xanaa di jox question bu xam grand rek est-ce que ñaareelu médecin boobu est-ce que ça existe dans ce dossier là est-ce que am na deuxième médecin à part ki nga xamante ne moom moo génne woon certificat médical bi. waaw <coughs> bu fekkee ni am na deuxième médecin. ba léegi li nga xam ne mooy procédure pénale bu concerné dossier spécifique bu suite euh, Spa Beauté mm-hmm. amul présence am amul trace am amul passage am mm-hmm. du à l'enquête préliminaire mm-hmm. du à l'audition yi nga xam ne moom la juge d'instruction nekk di def parce que gis ñuy jusqu'à présent kii di euh, juge bi maa xam euh, Diallo li muy def mooy surtout ñi nga xam ne mooy les acteurs identifiés ñi nga xam ne jot nañu leen wala seen tour fës na ci li nga xam ne mooy PV d'audition bu gendarmerie yi génnee ma fàttaliwaat encore bamtuwaat ko ni ki benn procès verbal d'audition moo am ci yëf yi mooy procédure verbal d'audition bi nga xam ne jaaykatu gerte caaf yëpp ñu ngi koy yor boobu rek moo ci am ci boobu nag euh, médecin lu tax ñu déglu sax médecin bi Alfousseynou Gaye Alfousseynou Gaye parce que Alfousseynou Gaye moo consulté ki nga xam ne mooy Adji Sarr consulté ko ñaari yoon ci guddi gi ci njëkk bi moom la ñu woo mu ñu jëli Adji Sarr fi nga xam ne mooy euh, euh, Liberté 6 extension. Mhm. parce que gis naa ay yenn journaliste ñu expliquer ni docteur Alfonseno gay moo ko jël si Sweet Spa Beauté. Okay. c'est pas vrai. Okay. Sweet Spa Beauté quatre personnes la. Mhm. Adji Sarr euh, ñett ñeent ñeenti góor lañu. Mhm. chauffeur chauffeur ki nga xam ne mooy Sidi Ahmed mbay parce que Sidi Ahmed mbay dawaloon ak ki nga xam ne moo leen permettre ak paasam. pour que gendarmerie bàyyi leen parce que période boobu couvre-feu la donc médecin bu ñu identifié pour le moment nekk gucca ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk aux alentours de ce complot là le juge d'instruction n'a pas encore cherché à les identifier ñi muy auditionné mooy ñi nga xam ne identifié nañ leen pour le moment mhm. léegi kii di Alfousseynou Gaye kii di euh, Gabi Sow muy xaritam muy avocat bi mhm. moo ko woo ne ko dama am sama jarbaat boo xam ne dafa nekk dans un état émotionnel bu que am na benn waaye mu ñëw mu jël si ko yóbbu ko dem consulter ko mu pare mu delloo si leen ko. Mm-hmm. moom rek moom euh, présence am mu assumer ko dance ce dossier la moom moo signé certificat médical bu wone ni xale bii ñu ma indil amul gisuma benn traumatisme euh, euh, nekkul jànk yàgg na tey waxtu yi ñu jógee amul ci lenn loo xam ne muy preuve scientifique bu may won ni dañ ko violé mm-hmm. loolu moo ci nekk donc amul beneen médecin. keneen ku leen wax ni y' a un deuxième médecin ak deuxième prélèvement. waxi tappale la waxi Me El Hadji la ak ñi mu àndal. ok voilà ça c' est bon à savoir. ñu ñu ñu euh, xam nañ kuy Aïssatou Ba si si kii xam nañ kan mooy Alphon euh, Alpha Seyni parce que ñëpp ngi wax ne moom mooy docteur bi mais kii di Ibrahima Koulibaly est ce que mun nga dollu. Ibrahima Koulibaly moo di boroomu kër. parce que maa ngi dégg léegi ngay nga wax xamu nañ Koulibaly mais Ibrahima lu tudd. Ibrahima Koulibaly mooy borom këru Ndeye Khady Ndiaye. Mhm. Ibrahima moom mooy le témoin dans l'affaire du viol parce que Ndeye Khady sax nekkul témoin dans l'affaire du viol parce qu'il n'était pas là nekkuloon ci kër gi bi yëf yi di am moom mu ngi woon hôpital ci prématuré ki nga xam ne mooy Ibrahima Koulibaly moo nekkoon ci kër gi ak beneen doomam bi ak ki nga xam ne mooy euh, Mama ay Aïssata Ba mooy Mama Ba mooy deuxième masseuse bi moom la Adji saar ne génnal néeg bi euh, mu bàyyi ko fa ak Ousmane Sonko Adji Sarr moomu moom la waxaat encore Mama Ba fële ca section de recherche bi leen capitaine Touré di di leen entendre. Mhm. bàyyi fa téléphone am woo benn copain bi nekk capitaine bi nekk ci benn boîte beneen bureau bi mu dem fa di leen déglu ñuy Mama Ba kii di ko lakkal séeréer naan ko génnal ci affaire yi dinaa am lu ma la jox ainsi de suite bàyyil noonu mu sedd. Mhm. donc kooku mooy ay Aïssata Ba mooy maama mhm. bi yëf jeexee moom ñibbi na dëkkam. Mama Ba sëy na tey mu ngi jëkkëram sëy na pare na ci yëf yi. et puis ma fàttali ni. auditionné woon nañ ko dans le fond une première fois deuxième bi mooy keroog bi ñu ko woy pour mu ñëw confrontation parce que Mama Ba li mu wax c'est simple euh, tappale yi Adji Sarr di wax body body xaw ma nan ak yooyu muy wax mu ne musu fa am moom li mu xam mooy dañuy sol benn seen yëre ba pare ñu teg ci benn genre jetable mhm. dessus jetable bu ñu defee massage ba pare ñu jël seen dessus jetable ñu sànni ko mais seen yëre bu normal la ñuy sol kooku mooy Mama Ba kenn mooy Ibrahima Koulibaly mhm. mooy jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye mhm. moom mooy témoin dans l' affaire Adji Sarr Ousmane Sonko mais nekkul témoin dans la affaire de proxénétisme bi nga xam ne parquet moo inventé dossier bi monte ko pour dugal Ndeye yi parce que li ñu bëggoon mooy Ndeye Khady moo wax ni complot Ousmane Sonko euh, viol Ousmane Sonko am na Ndeye Khady nag ba keroog muy tëdd bàmmeelam nee na loolu musta am donc que ça soit que à ce niveau là information boobu loolu la mhm. léegi nag amul ñi nga xam ne nag parce que tout dernièrement seen dernière audition bi Adji Sarr cité na joxe na turu ay ñun ñeneen ñoo xam ne jaaroon nañ ci salon ba mais jusqu'à présent convoqué wu ñu ñooñu te amul kenn koo xam ne dem na ci sensu version bi Adji Sarr di joxe Adji Sarr moom version moom rek la léegi beneen chose mooy kaaw euh, xale bu góor bi Sidi Ahmed Mbaye Sidi Ahmed mbay nag waxul dëkk parce que wax na nii la mosul xam diw musul xam diw mosul xam euh, comment il s'appelle Euh, Mamour Diallo. keroog bi Adji Sarr nekkee dans le désarroi lañ dem seeti Mamour Diallo du dëgg. parce que dañu tëggoon affaire bi bien auparavant lool la wax bi ñu koy auditionné ci juge loolu la lool la fa wax mais loolu du dëgg. parce que quinze jours avant. kii di yi di avocat nee na man recevoir naa Adji Sarr pour ma conseiller ko mm-hmm. donc quinze jours avant préparé woon nañu et pour c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité mm-hmm. nit nga jug complot pour wax ne damay ñëw pour nu violer ma nga dem tëdd di xaar ku la ñu violer hmm. mosta am fenn ci àddina bi hmm. donc loolu laa amoon ci parenthèse boobu bien sûr noonu Pa Moussa euh, par rapport ak euh, avocat Sonko yi demandé euh, capitaine Touré mu ñëw ban stratégie lañ bëgg a élaborer foofu ak Sonko tamit actuellement mi ngi période préélectorale mi ngi waaj a dem campagne est-ce que dinañ élucider l'affaire avant avant avant parce que lii la convocation du capitaine Touré dans le dossier est très importante mm-hmm. parce que moom moo nekkoon en position de moo nekkoon un contrôle de de de de l'enquête mm-hmm. alors qu'on est officier de police judiciaire je parle aussi sous le sous le sous le contrôle du formateur des OPJ da ngay da ngay da ngay enquête à charge et à décharge boo enquête à charge contre Ousmane Sonko par rapport aux déclarations de Adji Sarr mm-hmm. ñoom dañu doon tourner pour xool et qu'est-ce pas dit lan mooy dëgg bi lan la ñu waxut pour chercher lan moo nekk ci ginnaaw affaire bi exister un complot c'était sur ça que le capitaine partait ñu arrêté ko parce que bu leen fàtte euh, Sidi Ahmed Mbaye il n'était pas dans la procédure mm-hmm. moom dafa gunge woon Adji Sarr mu pare ci normalement turam waru ci woon nekk comment ils ont fait pour dugal Sidi Ahmed Mbaye ci biir dossier bi loolu ça c'est par euh, l'officier de police judiciaire par son flair par euh, le fait que mu mën a décrypter le puzzle moo ko permettre mu ne xaaral ma laaj kële parce que à la base Kelley n'était pas impliqué dans le dossier Sidi Ahmed Mbaye parce que Adji Sarr c'est un euh, une femme une personne majeure bu ñëw porter plainte mais nan la ñu bu ñu dugal Sidi Ahmed Mbaye ba bu ñuy dugg ci questionnement bi di ko laaj yow yaay kan lan nga bokk est-ce que politicien nga ba finalement mu ñëw dugal ki nga xam ne mooy Maodo Mbaye nan sama papa politicien la Maodo mbay ainsi de suite donc lan moo freiné le capitaine dans euh, dynamique là lu tax mu arrêté lu tax mu taxaw ça c'est des yoo xam ne et puis su continuer woon enquête bi si ñan la jëm parce que li avocat yi bëgg a tey mooy la thèse du complot pour que ñu impliquer toutes les personnes ñi nga xam ne ba léegi déggaguñu leen ci dossier bi parce que ba léegi dañuy wax Mamour Diallo Mamour kenn mosu ko convoqué kenn mosu ko auditionné mhm. dañuy wax Dior Diagne Dior kenn mosu ko woo kenn mosu ko comment on appelle auditionné mhm. dañuy wax euh, ba léegi kenn woowu ko kenn kenn kenn kenn euh, auditionné ko bul fàtte Dior Diagne mu njëkk duut baaram mhm. ki nga xam ne mooy Gabi Gabi porté ko plainte dossier baa ngi devant le devant le le ba tey dossier bi bougé wul à ce niveau là. Mhm. alors balaa ñu koo tëj rek une question fermée balaa ñu jàll si point mhm. boobu. Ah, dafa am benn parti sénégalais yoo xam ne dañoo ne Pape Alé Niang moom moo jox euh, Mollah Morgun euh, information yi muy joxe mais beneen partie bi dañoo ne Babacar Touré la est-ce que fii par oui ou non mën nga ñu signaler ba xam yow euh, Mollah Morgun information de taille yaa <laughs> du ma père. Hmm. question fermée oui ou non. du ma du ma père. Mollah xam naa ko Assadoman bi ma interpellé dans une vidéo bu may wax ñan ñoo saboté sama oto. Hmm. wax naa ak moom deux fois ça s'arrête la mais xaw ma kan mooy. père xaw ma 17 jours yi muy wax ak kii topp kii bi yëpp c'est pas toi qui. non non non <laughs> déedéet ma. Ah, c'est sûr. non man lu may wax man dama am suma média. Hmm. su ma amee lu may wax damay assumer jàkkaarloo ak caméra bi wax li may wax. du ma jox keneen pour mu nekkal ma suma voix. mais mais bëggoon naa wax aussi ci euh, surtout convocation capitaine Touré bi pour man c'est une excellente stratégie des avocats de mhm. parce que euh, bu ñu comprendre ni affaire yi demee ci enquête préliminaire bi pour man le parquet dafa précipité pour capitaine Touré euh, logique bi mu nekkoon yoon bi mu nekkoon mu bañ fa àgg ñu jàng dossier bi ci moom alors bii par cette convocation là pour man c'est une continuité de l'enquête préliminaire bi nga xamante ne moom engagé woon na ko niveau de la section de recherche mu continuer continuer nag c'est de là que la ñu mën a citer nommément ñi nga xamante ne xëy na euh, duggaguñ ci dossier bi formellement mais moom mën na leen interpeller et que juge bi dina élargir parce que c'est le juge d'instruction une enquête à charge et à décharge dina mën a élargir champ d'application euh, fi capitaine Touré nekkoon et je pense que justement loolu taxoon ma bëggoon laaj sax Babacar Touré parce que Sénégal moom dañ ñu baaxoo lenn mooy poursuivre les seconds couteaux à la place des commanditaires gis nañ fi dans le passé du dossier yoo xam ne ña ngi topp am na ñu ñu tuddoon ni ñii ñooy commanditaires yi sama xel dafa dem ci Fatoumata Matar Ndiaye ak parmi tant dossiers ndax am nga yaakaar ni ci dossier Sweet Beauté bi ñi nga xam ne ñoom ñooy les commanditaires du complot am nga yaakaar ni ñii yoon dinañ leen topp wala bu fekk boog ban yoon lañ mën a jaar pour que ñoom ñu engagé seen responsabilité pénale ak Pape ma dolli foofu rek est-ce que ni ko avocat yi sàkkoo ngir ñu euh, auditionné ki nga xam ne mooy euh, capitaine Touré est-ce que njoxtu yaakaar nga dina am dinañ ko ko nangul dinañ leen euh, nekkuma dans la tête du juge Maham Diallo hmm. keroog avocat bi reproché na ma fii dama bëgg a nekk juge à la fois je veux pas être juge à la fois <laughs> mais li ma bëgg li ma waaw li ma bëgg a li ma bëgg a li ma foofu hmm. mooy tey fi dossier bi toll. puisque Adji saar moo am la main Adji Sarr moo am la main moom moo porte plainte au niveau du juge d'instruction ci li mu am comme élément yi nga xam ne Adji saar nee na ñii ñooy ay témoin am ñii ñooy ay élément de preuve am jusqu'à présent mën na leen dossier bi amul benn élément de preuve amul amul sperme amul ADN amul tappale yooyu ñuy wax yëpp dara amul ci amul vidéo amul dara. Mhm. léegi bu gisee ni dossier bi amul dara vide vide na moom dafay def lu ñuy wax un non-lieu. mu ne dossier bi gisatuma ci dara. mu delloo ko mu jëbal ko mu def une ordonnance de non-lieu à partir de l' ordonnance de non-lieu la ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak ay avocats mën a jël la main ñu demander obligé waat ñu instruire dans ce cas ñu gën a élargir enquête bi pour wax leen kan moo ci laal ak xam naa bu boobaa bu fekkee ne ona a un un un comment on appelle un parquet qui est qui est transparent danañu mën a yegg ci li nga xam ne mooy audition toutes ces personnes là ñi nga xam ne laale nañ ci ñi organiser ak ñoo xam ne njort nañ ñi am na lu ñu ci xam. ok euh, li ma la mujjee bëggoon mujjee laaj laata ñuy jàll ci euh, beneen dossier bi mooy tey jii nii yow Babacar Touré en tant que journaliste d'investigation boo xam ne da ngay gëstu gëstu yu xóot ci dossier tey jii nii yow sa intime conviction. ndax mooy dossier Sweet Beauté dina dem en procès wala ci non la yam quand on que yenn ñi ñoom Pape Moussa ñoom dama leen dégg ñu naan expertise liewul juge. est-ce que juge bi mënewul ne bon c'est vrai que certificat médical bi lii la wax mais man liewu ma mu daal di yóbbu dossier bi renvoi en procès c'est-à-dire que lan mooy sa intime conviction par rapport renvoi en procès wala non lieu Pape moom laay wax tout temps jóge nañu ci korité léegi ñu bëri jigéen ñu bëri xulo nañu ak ay tailleur hmm. dañuy dem ci tabaski ñu bëri nañu xuloo ak taw kuy xuloo ak tailleur dafay fekk nga yóbbu tissu yi ci tailleur pour mu ñawal la dem procès il ay éléments yooyu mais yow amuloo dara amuloo dossier lu dul ay aji saar bi daan naan sama papa day dawal avion su boobu ne la sama yaay vélo la yoroon loolu ban sens la parce que il n'y a rien en dehors des accusations en dehors des mots de Adji Sarr et la version de Adji Sarr au niveau de la section de recherche le 3 février 2021 bokkul avec les différentes versions yi Adji Sarr di joxe ba keroog bu mujj dans le bureau du juge d'instruction donc finalement boo demee ci lan ngay yóbbu dañu amul dañu amul élément dossier bi amul élément lu dul procès verbal bi ne li ngeen bëgg amut te leneen encore da koy fàtte. ki nga xam ne mu njëkk l'élément essentiel parce que boo nee dossier bi am na parce que Adji Sarr dafa buñ ko gisee mu naan procès wéy procès procès je veux procès mel ni kon yàkkamti ñëw atte mbir mi mel ni am na ci lu mu toog quoi mooy keroog muy mel ni euh, la reine Elisabeth naan nit ñi naan leen je veux procès <laughs> c'est parce que li ma leen waxoon depuis mais si njalbeen xuusmaa njàpp la hmm. dañ ko naan defal lii mu def ñu ne ko activer lii mu def ko li ci des xam nga Adji Sarr y'a deux Adji Sarr euh, Adji Sarr moom ci boppam la personne Adji Sarr dafa tiit dafa jaaxle elle a peur pour sa vie et ça fait très longtemps que je l'ai dit loolu moo ko poussé woon sax ba mu enregistré parce que amuloon beneen élément bu mu téye gars yi loolu moo ko poussé woon ba mu def l' enregistrement le le fameux enregistrement bi nga xam ne tasaare nan ko mais au fin fond de de d'elle-même elle ne sait pas fu mu jëm. Mhm. d'ailleurs gis naa ñenn ñi ci tapalekat yi ki ànd ak moom ñu ngi wootee nee na ñu sénégalais nañu cotiser parce que aji fu mu nekk nii dafa am ay problème amul lu mu dundee. parce que ñi nga xam ne ñoo ko naroon a jàppale wala ñoo ko ñoo ñoo gëmoon ni à un moment ni mën nañu utiliser yëf yi tey dem nañu ba xam ne yëf yi kenn mënu koo utiliser kon nañu xool nu ñu ci génnee. Mhm. foofu lañ toll mais procès oui bu la neexee gis nañ ko ay nit ñoo xam ne da ngay créer benn. Euh, sans élément sans rien du tout tu vas à boo xam ne juste pour le plaisir d'aller au procès comme ni ko waxee El Hadj Diouf nee na euh, xaw ma euh, euh, jëw balaa moo neex nga jàkkaarloo ñoom ñu taxaw Ousmane ko taxaw aji di ko saaga moom mu ni ko saaga loolu moo ko neex mën nañ dem mais dans ce dossier la bu dee dans un état normal un état de droit amul benn élément dans ce dossier là bi mën a tax ñu dem devant un tribunal mm-hmm. amut. Euh, li mu wax kenn mënu koo dindi. mais au delà de l' aspect juridique ci affaire de Sweet Beauté dafa am yeneen paramètres yu en dugg en jeu moo tax ma gëm ne inéluctablement dañuy dem procès c' est à dire le juge d' instruction va faire une ordonnance de renvoi. dem euh, léegi nag loolu euh, dafa am par exemple xam nga aji euh, on a plusieurs aji saar ci moment bu nekk am na lu mu war a doon à un moment donné victimisation la woon mu ñëw taxaw muuru wax jooy jooylu après dem na ba fii ñu toll dañ mel ni ci comédie la ñu nekk di nekk way wii au procès nangam di enregistré ay audio yooyu parce que boobu da doon muuru di jooy mais bi muuruwul dafa def shooting yu rafet def voilà def ay shooting am internationalisé aussi Jeune Afrique et cetera et cetera am na loo xamante ne euh, benn gain moom moo ci des mooy bu ñu demee ordonnance de renvoi mhm. sur le fait juridique bu boobaa képp ku doon euh, accusé peut-être que ridicule ngay mujj doon mais mhm. am na leen loo xamante ne mën na ci am comme gain cest à euh, xale boobu noonu Euh, toog di joxat bi Sonko yenn baat yi qui euh, qui deviendra un procès très gênant mhm. et pour ñoom loolu ça suffit oui euh, des si dossier bi waaw dafa am lu ma jox quoi en fait c'est pas une caricature mhm. dafa ma jox une bouteille et son bouchon je crois qu'ils l'ont assez poussé donc ils l'ont poussé ba foo xam ne finalement le tire-bouchon n'y peut plus rien Alors, quand le bouchon il est au fond de la bouteille, là, même quand vous avez un petit bouchon, c'est plus possible de le tirer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire C'est de casser la bouteille. Parce que pour man dans cette histoire-là, mm -hmm. euh, de Nunan, mais en tout cas, qui a fait l'affaire Parce que si c'était une personne ordinaire comme ça, mais on n'allait pas en être là. Mm -hmm. Souvent, dans les aux écoles, c'est la personne ou bien la faute. Qu'est-ce qu'on réprime lan la ñu sanctionné c'est la faute parce que dafa am loo xam ne mënul dem pour man le bouchon il est au fond de la bouteille lan nga bëgg wax foofu mu gën a leer c'est-à-dire que il n'y a pas possibilité véritablement donc d'aller jusqu'à incriminer la personne mise en cause tout le monde c'est un dossier vide mais c'est vide ok c'est vite voilà, ça c'est un dossier ça c'est le structure des OPJ qui parle oui oui <laughs> mooy ñiy formé euh, commandant de brigade. voilà commissaire de police j'ai fait sept ans à l'école ça je vous ai pas dit. Mhm. donc c'est c'est exactement ça bon c'est une caricature mais euh, c'est c'est également une forme de pédagogie. Mhm. quand vous ce que je dis là quand euh, vous voyez un peu ce que c'est un tire-bouchon vous voyez non quand vous avez le bouchon au fond. monsieur Ba. Ah. Euh, yow nga xamante ne nekk nga commandant brigade est-ce que l'attitude du capitaine Touré. ci moment bu procédure bi foofu mu toll ak ni ñu ko acculé woon coow li ni état d'esprit am naka la war a mel en tant que gendarme. actuellement nii ou bien. non à l'époque moment boobu noonu. à l'époque xam nga ñun bu ñu formé gendarmerie mais c'est ce que je dis à mes élèves alors vous venez quand même d'horizons divers ku nekk danga am ay waajur ku nekk da nga jóge si gox boo ñëw gendarmerie 21 ans ngay am da ngay ñëw ak sa yar n'est-ce mhm. bon ak sa état d'esprit gendarmerie on vous met en école. pour qua même vous apprendre lan mooy gendarmerie mais dafa am caractère yoo xam ne kenn mënu ko jël si yow ni sa personnalité mhm. man personnellement euh, ça <laughs> tout le le sait souvent j'ai eu des soucis parce que en général je ressemble pas à beaucoup parce que ni ñu ma yaree la donc euh, parce que lieu de naissance nit dafa am lu mu déterminer si moom mhm. sa personnalité te boo gisee nit dem euh, aux assises dafa am lu ñuy enquête de personnalité enquête boobu suivant xale bi nu mu juddoo quel que soit le fait bu fekkee ne il est issu de parents pauvres sa mère était prostituée son père était décédé avant qu'il n'ait deux ans n'est-ce pas mhm. mais yaram du bokk ak koo xam ne vraiment il est entouré de son père et de sa mère c'est des fonctionnaires qui l'ont éduqué en tout cas dans un quartier UP qui l'ont mis dans de bonnes écoles n'est-ce pas donc chance de réussite yi foofu lay ëppee c'est exactement pour parler un peu du capitaine Touré Mhm. moi je connais pas en fait je l'ai connu un peu. waaw léegi waaw capitaine Touré xam naa ko tuuti. xam naa ko tuuti parce que ma sama fekk Kër Massar. je crois que ngay sori ci waxtaan bi ndax daq bi ñu ko daq gendarmerie ànd nga ci wala àndoo ci. bon ça vraiment je ne sais pas trop. ok lan moo nekkoon euh, vraiment si si dossier bi. Hmm. pour que parce que quand même il y, y a un conseil d'enquête naturellement. Mm-hmm. donc qui a été euh, dafa euh, maintenant mm-hmm. euh, bon l'un dans l'autre mmh. comme dañu ne bon euh, dafa dem cour suprême. bon attendons un peu de voir. mais en général donc ñoom ñoo xam en fait pourquoi parce que la chose là pouvait ne pas en arriver là. parce que nag quand il faut pas oublier dañu def dañu prêter serment. Mm-hmm. ba pare fii ñun dañu commencé woon liggéey nekk ndaw. ba fu mu ne nit ñu génn ñu ngi sant yàlla am na ñoo xam ne actuellement ils survivent parce qu'ils sont rattrapés justement par ce qu'ils ont fait ñu ngi def loo xam ne ñu ngi euh, la moo leen rattrapé def nañu loo xam ne jombul ne parce que yàlla dafa dafa tiim dafa ñu tiim ku nekk mi ngi gis li ngay def faw laa wax de mhm. da ngay fay li nga xam ne parce que nga nga jàpp benn nit bu defu dara nga libéré mille coupables moo ko gën. moo ko gën d' accord Thiendella la euh, euh, loo xam ci dossier Adji Sarr balaa ñuy jàll rapidement Fatima ñi. <laughs> prolongation la je comprends <laughs> problème damay rejoindre sama collègue rek. Mm. c' est pas un def actualité tiré ko tiré ko ba fii c' mm. parce que y' a plus important dans le pays que ce mm-hmm. que ce parce que vraiment. je, je voulais qu'on parle d'autre chose que Adji Sarr a tellement de problèmes ici Adji Sarr Sonko ça c'est rien quoi man je me dis que y a plus important que ça la l'insécurité insécurité boobu ci la ñuy ñëw dugg léegi yeneen ak yeneen les problèmes des populations d'accord man je voulais qu'on aborde ça non yow sa temps non c'est pas ça je je ne parle pas ah, de ce de ce plateau dans ce pays mhm. on doit arrêter dossier Adji Sarr Sonko vraiment y a plus important que ça ok man je vois que vraiment c'est pas quelque chose qu'on doit chaque jour di ci nekk quoi. parce que vraiment da nga réseau de kii rek nekk loo ko fa nga bëgg a waxee. lu war a toog di expliquer vraiment fenku laay na bu yàgg quoi vraiment. da c'est pas la peine quoi